billahi wa ala millati rasul man hajil xadim ginnaaw bu ma sante ñëpp sénégal yi ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew kàddu yi daa mun si ñàkk damay xamal ñëpp ni man dama wóolu ko tedd ki ba noppi doyloo ko maanaam moo ma féete fépp waxoon naa ko damay waxaat rek jëlloo ma kenn awoka ku tedd ki doy ma lépp ay waxam doy na ma lépp bu dee avocat xanaa ñii soutenir ci réew mi ak bitim réew xanaa loolu képp doy na avocat ci zahir bu dee ci baatin nag waxi noppi ko tedd ci jëlloo ma kenn avocat maa ngi koy wax maa ngi maa ngi seedal population sénégalaise ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ni jëlloo ma kenn avocat ndax man sama bopp ak sama lépp ak sama ñépp dama ko dugal ci miimu xaadimu rasul ni mu jële boppam ak léppam dugal ci saatu sama du loolu leer na naa ñi dama bëgg nit ñi xam fi ma nekk wasalaam